bokkentoxnat yaatal vision dal leen ak jàmm ci xibaar ñu dikk ak yéen ci la gën a fes ñu daal di koy door nag mbirum Bassirou Diomaye fay ay kàddu nag jë cay jub ca sensé nit ña nag ñoo ngi cay daal di am ay kàddu yoo xamante ne bi ña ngi ko cay daal di tekk Pape Alé Niang moom it daal di génn daal xamal ki nga xamante ne bii moo di euh, Bassirou Diomaye fay ne ko nag na xoolaat aw na xool aw doxalinam bu baax a baax ginnaaw bi nga xamante ne bii nag askan wi wóolu noonu ko ba teg ko ci bopp réew mi nga xamante ne ay loobikat lan nga xamante ne bii nag dañoo jàpp ne ci système bi lanu bokkoon nag bëgg a daw jëm siwaat foofe mu daal di xool bu baax a baax nag li nga xamante ne bii fas yéene na koo def ci seen diggante ak ñoom waaye yéen ñi nga xamante ne dañoo jàpp luubaloon nag askanu réew mi mu daal lu baroon nag alal loo xam ne alal joo xamante ne alal li askan wi la moom it mu daal di ci taxaw bu baax te it bu boobaa ñoom ñi nga xamante ne bii nag ñoom ñoo luubaloon askan woowee ñoo luubaloon xaalis askan woowu bu kenn daw nag dem ci kilifa diine yi loolee nag moom da caa daal taxaw bu baax a baax moom Pape Alé Niang ma ngay xamal daal kii di Bassirou Diomaye Diakhar fay di xamal nag ne ko fal gi nga xamante ne bii dañ la ko fal mooy fal gu set wicc goo xamante ne loxoy askanu Sénégal képp ñoo la fal jàpp na ne nag kii di président Macky Sall moom ak falam sax tubaab yi ñoom ñoo si daal di tegoon loxo waaye ki nga xamante ne bii moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag ak falam ñi nga xamante ne bii ñoo di askanu Sénégal nag ñoom ñoo ci daal di teg seen loxo mu daal di set bi ci nee na kenn falewu ko ca France fii ci biir réew mi fi leen ko daal di fale moom Bassirou Diomaye Diakhar fay